salaamaaleykum mbokk internet sunu gaal 24 mbégteeg bànneex tey la ñu am di dalal seen gan seen gan moom kenn doo leen ko présenté ci kër gi mooy euh, Cheikh Ibrahima Touré Cheikh Ibrahima Touré dëkk fii si Kër Massar Cheikh Ibrahima Touré dañ lay bàyyi avant ñuy déggu si laaj beeg tontu bi ñu bàyyi la nga présenté mbootu internet sunu gaal 24 Cheikh bi asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah wa barakaatu. asalaamaaleykum beneen yoon. Mhm. mbokki Sénégal. Mhm. mbokki Afrique. mbokki diaspora mbokki yëpp ci gàttal. ñu ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci turam ak ci santam kon ñu ngi wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu auzu billahi min asheytan rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin rahmaani rahim maliki yawmi din iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina sirata almustaqim sirata alladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi wa ad-dallin alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim yaa ximata cheikh li ahduri lana bi xasari mahdari wal taat fii bi nasharatin taati lana bi safar mbokk yi ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp jërëjëf Cheikh Ibrahima Touré xam-xamam màcc lool ci wàllum seetu fii cosaan ak aada fii sunu réew bitim réew sëñ bi dañ lay laaj première question ñu dugg si mooy wàllum listixaar ak seet moom dégg naa dañ ciy yëngatu bu baax a baax a baax sëñ bi waaw ñu ngi sant yàlla bu baax waaw listixaar ak seet dafa nekk ñaar yoo xam ne nii dañoo xaw a ñoroo muy listixaar ak seet waaw listixaar bi ñu ko waxee. Mhm. loolu mooy li ñuy ñaan ba pare. wax ci soxla sa soxla wala soxlaay ki lay ñaanloo. Mhm. ba pare def ko tëdd. bu ko defee yàlla am lu la ci won mhm. euh, nga jàpp loolu. boo jàppee loolu ki la koy seetloo nga wax na ko. sa listixaar bi de lii moo ci génn. bu dee seet la nag moom. biñ ci yoor ñun wàllu hmm. alxuraan la parce que ñun duñ jëfandikoo pettaaw dëgg la dëgg la waaw ñun lépp lu ñuy jëfandikoo rek dañ koy teg ci alxuraan ak sunna hmm. biñ ci yor ci wàllu alxuraan la hmm. boobu tim dañ lay da ngay dañuy jox sa tur ak sa turu yaay wala dañuy jox sa tur ak sa turu yaay ak li ñuy seetloo lan la même foo même bu fekkee yaa ngi bitim réew tuk fa nekk fu sori sax tamit da koy kii bu baax saafara bu baax a baax foo mën a nekk ci àdduna bi boo ma ooyee na ma dama bëgg nga li sax dama bëgg nga li saxaaram mm. wala nga seetal ma mm. jox ñu sa tur ak sa tur yaay mm. ak ci lan lañuy ñuy seetloo comme nga ne dama amoon benn liggéey bu may yóotu dama bëgg nga seetal ma ci liggéey boobu jox ñi sa tur ak sa tur yaay wala dama am benn affaire bu ma bëgg dugg jotul jotul sa ngay wax bi dafa am lu ma bëgg a dugg rek léegi dama bëgg nga seetal ma ci ndax bu ma ci duggee dina baax wala du baax jox ma sa tur ak sa turu yaay mm-hmm. bu dee seet la wala saxaar la bu mu ci mëntu doon mm-hmm. danañ la ko seetal wala ñu listaxaar la ko yàlla danañ ci wan lu mm-hmm. leer te lu leer loolu mu ñuy wan dafay ànd ak ay sarax bu ko defee bu ñu ko defee ba pare buñ la ko waxee ala kulli haal li ñu wax. Mhm. di ko ci gis incha allah. dëgg la kookoy Cheikh Ibrahima Touré dëkk fii si Kër Massar Cheikh bi dan dem si kër da gis coow li bari na loolu maanaam wàllum guy tas. kër guy tas mhm. bëri na problème yu bari loolu da gis sax ay néegu sëy yu tas ndax ay coow lu bari waaye sëñ bi dégg naa loolu dañ siy saafara tamit bu baax a baax lu wér la. waaw. Mhm. sant yàlla bu baax. ndax euh, loolu moom. ñu ci sant yàlla ndax ñu nga xam ñëpp. xamee nañu ci wàllu boobu ci wàllu jafe-jafe kër. kër gu naqari Mm-hmm. moo xam ci diggante jëkkër jabar la mm-hmm. moo xam ci ay doomu baay la mm-hmm. moo xam ci ay nit ñu dëkk ñoo xam ne ay mbokk na waaye mënuñoo juboo ci seen i biir dëgg la lu mu ci mëntu doon waaw am nañ ci ay saafara bu dee diggante jëkkër jabar la am nañ ci garab yu bari dëgg la dëgg la yu ñu lay jox yoo xam ne ni bu dee sa jëkkër du lay defal dara wala sa jëkkër yëgul la wala sa jëkkër dafay tërëree ci biti bu xëyee balaa muy wàcc nekk ci àll bi def lu ko neexee ba ko ñëw boo ko waxee mu mer nangam ak nangam yooyu ñun am nañ ci saafara yoo xam ne ni bu ñu la ko joxee. Mhm. boo ko defee sa diggante ak sa borom kër. Mhm. dina régler ne cocc yem ci yow. Mhm. di xëy heure di wàcc heure. dëgg la mais baadu sëñ bi du doon ay calmant rek ay maanaam quelque temps rek déedéet. ñun alxuraan la ñuy jëfandikoo. waaw ndax alxuraan dafa barke. dëgg la dëgg la bokkut ak galaaj yu ñuul boo xam ne nii. naam ga galaaj yu ñuul sax am neen ko. am na lu ñu ci yàlla xamal. am na lu ñu ciy jëfandikoo. waaye su li ñuy jëfandikoo lu ci ëpp. alxuraan la ndax galaaj yu ñuul quelque temps mhm. mu bàyyi waaye alxuraan nag dafa nekk loo xam ne lu barke la macha allah fi lañ ko fekk fi lañ koy bàyyi depuis jamono yonent bi sallallahu alayhi wasallam mhm. ba léegi mhm. mu ngi fi te danañ fi jógee alxuraan continuer di dox ba ilaa yawmi diin te du fi jógee waaw moo tax nag dafa barke lépp loo ci liggéey rek yàlla daf koy barkeel. moo tax ñun lépp lu ñuy liggéey. lu ci ëpp alxuraan lañ ciy jiital. waaw léeg-léeg nag mu dem ba laaj yàlla yu ñuul. Hmm. ñu def ko waaye nag liñ koy faral di jë koy jëfandikoo. Hmm. bariwul noonu alxuraan la ñuy faral di jëfandikoo te wax dëgg yàlla liñ ciy jëfandikoo. Hmm. yàlla mu ngi ciy defal sutura bu baax a baax a baax. waaw te gàllaaj yi ñu la ciy jox sa diggante ak sa borom kër. wala yow ko góor ki sax nga am sa soxna. sa soxna ni nga bëgg mu me menut ko. am nañ ci ay garab. wala sax kër gi mhm. yow borom kër gi say njaboot mhm. say doom say nangam nangam ñi nga xam ne yàlla ilif ci kër gi mhm. ni nga bëgg ñu men ko munuñ ko menuñ ko mooy ne nekkuñ benn dañuy xuloo dañuy ŋaayoo dañuy nangama nangam yooyu yëpp am nañ ci garab yoo xam ne bi leen ko joxee bi nga ko jëfandikoo def ko ci togg gi incha allah ñëpp danañ nekk benn. dëgg la dëgg jërëjëf jërëjëf seex bi seex bi seex bi seex kookooy seex Ibrahima Touré. seex Ibrahima Touré tey ñu dem si li nga xamante ni mooy feebar complexe boo xam ne da ngay gis ko ko gàntaayoo pour mu ñëw sax expliqué la ko feebaram moom complexe la am muy wàllum tële. góor moom mënul boppam dara si néegu sëy. Mm-hmm. waaye sëñ bi loolu moom das ka da nga koy saafara bu baax a baax a baax. waaw loolu tim alhamdulilah. Mm-hmm, ndax bari na ñu ma ciy jëflante. Mm-hmm. ñu gis si seen bopp bu baax a baax a baax ndax loolu Mm-hmm. toujours la ma koy wax ne loolu feebaru jamono ji la. dëgg bari na loolu. dafa bari ñu koy tawat. wàllu néegu sëy. Mm-hmm. dafa bari léegi ay jafe-jafe maam bu néew kattan ci wàllu sëy. dafa bari. yu koy indi nag. Mm-hmm. ba léegi facteurs yu koy indi lu bari la. am na ay feebar yu koy indi. bari na ci am na ñuy wax ay hémorroïdes da koy indi. am na ñuy wax euh, euh, siti da ko indi am na ñuy wax leneen leneen leneen bari na daal lu ñu koy indi mm-hmm. waaye tim ba léegi ndaw yi nga xam ne dañuy fooye seen ndaw loolu tim daf koy indi ba léegi ñu ci bari dañuy fooye seen ndaw de trop mm-hmm, ba ëllëg bu ñu amee soxna mm-hmm. duñ ci mën dara waaw loolu tim lu mat a la waaye nag alaakulli leexal buñ ci mëntu doon bi nga xam ne daal moom mënuñ koo faj. Hmm. mooy bi nga xam ne ni nit ku dafa ko judduwaale. boobu moom ku ko am moom jaru ngay hmm. bi nga xam ne ni dafa dab nit ki. Hmm. incha allah bu ñëwee. am nañ ci ay garab yoo xam ne nii ay saafara yu. mais sëñ bi ba loolu moom du doon ay maanaam garab boo xam ne pour quelque temps da dem ba si biir dootoo mën la ko waxee rek. dëgg la alxuraan la. moom la ñuy bind jox la saafara la. saafara la nga koy jëfandikoo di ko naan. maanaam lépp ci alxuraan bi la lépp ci alxuraan bi la am na bu nga xam ne nii nekkul bi ñuy naan sax waaye lu ñuy mhm. sangoo la waaw yooyu yëpp mhm. euh, dañ koy liggéey mhm. moo xam néew kàttan bu mën a doon daal am nañ ci ay sunguf yi ñu ciy joxe am nañ ci tim ay reen yi ciy joxe waaye yooyu yëpp tim dafay ànd ak alxuraan ndax alxuraan dafay ànd ak sunguf dafay ànd ak ren dafay ànd ak xas dafay ànd ak xob alxuraan daal dafay ànd ak lu ne ci gàttal lépp la ëmb daal loolu moo tax ñu lépp lu ñuy liggéey rek dafay ànd ak alxuraan moo tax wàllu néew kàttan moom képp ku nga xam ne dal na la. Mm. wala ñu takkal ak xala. Mm. même takk xala tamit dafa mm. xew ci jamono. bari na ñuy ñëw fi di ma ko jàmbatal. ba France ba Italie. Europe daal ñu am léegi léegi am ñu ma oo di ma loo takk xala. waaye fii fii la gën a bari. yëpp bu mu ci doon dañ koy dindi si saa si. incha allah jërëjëf sëñ bi ñu si nga xamante ne mooy jigéen nga xam ne ndeysaan day bëgg am doom mën doom lool lool lool. sëñ loolu dégg maam dégg naa nag ñu ne yow da nga sant da nga siy bu baax baax koo koo jëflanteel moom ci loolu moom dégg naa lay kontaan lool lool sëñ waaw santaat yàlla beneen yoon rek ndax euh, lépp jàmm bi mënul dara mm-hmm. yàlla moo mën lépp mm-hmm. waaye ñu ngi sant yàlla mm-hmm. bi nga xamee ni yàlla dimbale nañu defal ñu sutura ba li ñuy ñaan yàlla yàlla moom ci dafa sutura loolu ñu ci sant yàlla bu baax di ñaan mu amin ndax moo ne ñaan leen ma ma may leen ngeen sant ma dolli leen loolu ñu ci sant yàlla wàllu am doom mhm. kooku toujours ñi ñëw ci man dama leen koy wax ma leen mhm. bi mu ci yàggee bi mu ci commencé liggéey mhm. du tey waaw ah, loolu moom dégg naa ko moom du tey dégg naa ko waaw ndaxte euh, jamono ji dafa xaw a doy waar am na ñu bëri ñoo xam ne dañuy ooteewoo lu nga xam ne nekkul ci ñoom nekkul ci ñoom waaye man lépp lu nga xam ne li may wax la wala li may jëflante nit ki Mhm. dama ciy seet suma diggante mooy mooy mooy mooy nga baal ma mooy ñu bon ñoo yàq ñu baax ñu ñu baax ñu te roy duñu roog piir daal maanaam <laughs> dëgg la ñu bëri may oo ci bitim réew dëgg la dëgg la ma jàmbatal yu mel noonu may leen man de ku ci bëgg ma jëflante ak mhm, yow mhm. man ni may jëflante ak yow na ko jëflante ak man ndax man lépp lu ma la wax dinaa ko def heure bu ma la waxee ne bés nangam dinaa la jox sa garab nga jot ci di ci jot heure boo ma santee dara may la lii mën naa ko xamal ne bu ma ci ñaanee yàlla yàlla dina ma ci defal jàmm heure bu ma tawateel dara ma la lii mënuma ko mm-hmm. kon demal nga seeti kenn parce que man li may def rek mm-hmm. day fekk ma man xam naa ko am na ñu ma ci defal ba gis si résultat mm-hmm. wàllu am doom yàgg naa ci liggéey bari na jigéen ñu bari ñoo xam ne dañuy sëy am benn doom taxaw am na ñoo xam ne amuñ sax benn doom far am na ñoo xam ne ni bu ñu commencé rek mu tuuru heure bu ñu commencé mu tuuru far euh, daf koy def feebar da koy def am na ci yoo xam ne nag du feebar am na yoo xam ne liggéey la mm-hmm. am na ñoo xam ne dañuy sëy si kër euh, ñeñ fa fekk xaw a doy waar lool wala ñeñ fa fekk am ci koo xam ne xaw a doy waar lool ne kii du fi amee doom yooyu yëpp dafay am mm-hmm. waaye bu mu ci mëntu doon rek mm-hmm. bu dee rab la mën nañ ko mën nañ ci saafu jox ay garab yoo xam ne nii mhm. boo ëmbee dina taxaw mhm. ëmb bi dina mat mhm. ëmb bi di nga am doom ci jàmm ak salaam doo ci am benn jafe bu dee rek dañ lay liggéey pour bul am doom ma ngi yoo xam ne ki liggéey dina la bàyyi liggéey bu ko deful dafay faatu wala yàlla dina ko nattu nattu boo xam ne dootu la tal ci mëntu doon yooyu rek am nañ ci ay garab yoo xam ne ak jigéen ñi nga xam ne tamit dañuy ëmb am problème dem ba dépassé seen weer mm, mm. wala ñu bëgg am doom li ci am ay mm. di matu matu gu yàgg yooyu yëpp nañ delluwaat ci li nga xam ne ni moom la fi maam yi bàyyi woon ndax jamono maam yi nit ñi ci leen doon gën a am doom te doo daan gis jigéen yoo xam ne dafay am doom di ci loru wala mu ciy sonn sonn googu ndax dafa am li fi maay bàyyi li fi maay bàyyi woon nag mooy lii ñu nekk alxuraan ji lañ leen jëfandikoo ak euh, reen yi ak sunguf yi ñu nekk yi nekk fi yooyu leen daan jëfandikoo ba jigéen daan na ëmb mm-hmm. ba am doom du mm-hmm. am benn jafe-jafe te dem hôpital waaye nag toll nañ ci jamono joo xam ne nii mm-hmm. jamono dafay dox dem hôpital mëntu ñàkk waaye looy dem dem hôpital tim du tee réalité yi nga xam ne nii moo fi nekk na nga jëlaale ci yooyu boole ko hôpital bi ndax hôpital dafa am fu mën a yem yaa ngi dégg am loo xam ne nekk hôpital du wàllu hôpital moo tax jigéen ñi hmm. bari hmm. dama leen ko wax ne leen hmm. bi ñu ambee liñ dem dem hôpital nañ ci booleewaale tim ay ñaan ndax mbiram am solo dafa am solo ndax mbiram am doom nekkut lu yomb jafe la lu métti la ëmb juróom-ñeenti weer xëy benn bés bés boobu ñëw bëgg la yóbbu àllaaxira wala mu yóbbu la sa àllaaxira loolu ndeysaan lu doy war la mm, mm. moo tax képp ku nga xam ne nii da nga wanu lor mm. na nga taxaw ci loolu am na ay ñaan yu ñu ciy def yoo xam ne nii di nga am doom ci jàmm ak salaam doo matu matu bu yàgg doo am jafe-jafe sa doom doo am jafe-jafe waaw loolu jërëjëf Cheikh Ibrahima Touré Cheikh Ibrahima ma bamtuwaat la numéro boobu affiché si baaru écran mooy 60 si whatsapp bi 927 13 39 ma bamtuwaat la ko 927 ba beneen numéro bi nga si jot beneen tamit mën nga ko si jot mooy 77 044 13 36 ma bamtuwaat leen ko 044 13 36. sëñ bi ma dem man dégg naa tamit dégg naa yor nga ay jaaroog lam doy waar yoo xam ne sëñ bi dégg naa yaa ngi ciy liggéey ak ay doomu aadama. waaw sëñ bi jaaro yooyu moom ah jaaro yooyu wax naa bu may dem la moo insha allah <laughs> naa la si jox nga yóbbaale jaaru la ak lam ak chaîne ak chaîne ñetti yooyu mhm. bul ci mëntu doon mhm. am na lu ñuy liggéey jox la ko mhm. nga boole ko sa jaaro bu la neexee mën nga ci def per comme nii xaqiqa bu la neexee mën nga si ñàkk def per comme nii comme nii comme simple nii bu mu ci doon rek am na téere bu nga xam ne dañ koy liggéey dugal ko ci biir jox la ko nga dugal ko ci biir boo ko defee yi ñett lay def ci yow jaaro bi di nga am alal mhm. di nga wér mhm. nit ñi dañ la fonk maanaam pour li nga am bayre ci nit ñi di nga am xabul nit ñi dañ la bëgg dañ la fonk danañ la nangul mhm. waaye dinga nga am wér gi yaram waaye tamit di am alal ñett yooyu la jaaro bi di def jaaro bi li ñuy def ci jaaro bi mën nañ ko def ci lam nga koy takk li ñuy def ci jaaro bi ba léegi mën nañ ko def ci sachet nga koy takk waaw ñetti yooyu bu mu ci mën du doon rek boo ko defee mhm. lii la jaaro bi di jëriñ mhm. moom la la yooyu di jëriñ moom la lam bi di jëriñ moom la chaîne bi di jëriñ boo ko takkee mhm. dinga nga am alal loo yootu di nga ko jot foo loo uti di ko am. nit ñi danañ la bugg. Mm-hmm. danañ la sopp. danañ la déglu boo mm-hmm. waxee sa mm-hmm. kàddu danañ ko déglu bu baax. waaye tim di nga am wér gi yaram. waaw ndax jamono ji wér gi yaram na lool. ci jaamu yàlla yi moo tax jaaro bi ñetti yooyu ci lay dox ci loolu lañ ko liggéey. dañ ko liggéey ci wàllu alal wàllu wér gi yaram. ak wàllu xabool. waaw macha allah moom kay ku ci am. bu dee ci réew mi la fii. macha allah bu dee tim da ngaa nekk Europe. macha allah jaaro bi daal ñi nga xam ne ni jot nañ ko am. ñoom xam neen ko rek. Hmm. incha allah ku ko am rek di nga xam li ci nekk. jërëjëf jërëjëf Cheikh jërëjëf ñu dem si wàllum kaaraange ak bayra dañ koy dañ ciy yëngatu seen bi kaaraange ak bayra daal maanaam. waaw loolu moom. Hmm. sant la bu baax a baax. dëgg la kaaraange toujours. waaw maa ngi koy wax léeg-léegi ay nit may leen. maa ngi am yenn façon kaaraange yoo xam ne hmm. nii. Euh, bu dee ki nga xam ne nii da nga yaakaar ne moom moo lay lor di la indil gàllankoor. dëgg la dëgg la bu dee dafa nekk sa mbokk dëgg dëgg dëgg dama naan la balaa nga koy jëfandikoo. Mm-hmm. na waxtaan ak moom. waxtaan ak moom parce que mm-hmm. dama am ay kaaraange yoo xam ne nii boo koy jëfandikoo. Mm-hmm. nit ki nga xam ne nii moo lay def lu bon. bakkanam mën na ci doxee. dem parce que kaaraange yooyu boo xasee jëfandikoo moom. sa sa noonu. yii rek moo mën a am. yii ñaar. benn mu ku nekk sa soppe. ànd yow wala mu dee bàyyi la fi. waaw loolu nag. Euh, lu doy waar la. moo tax képp koo xam ne nii yaa ngi liggéey. bëgg kaaraange parce que liggéey dafa doy waar mm-hmm. société yi dañuy liggéeyante boo demee ci marché bi dañuy liggéeyante mm-hmm. barab bi nga xam ne barab boo mën a dem ci réew mi rek wala ci bitim réew mm-hmm. nit ñi dafa dajee rek am na ay xeex bu ko defee nag kaaraange am na ay façon am na kaaraange yoo xam ne nii bu dee da yor place di liggéey mën nga ko def sa buntu place boo ko defee foofu. te dal nelaw sa place lu waay jot na ko def foofu mënu ci yow dara. Ah, am na kaaraange yoo xam ne mm. ci oto. lañ koy def wala ci moto. yoo xam ne ni jamono ji accident dafa bari. dafa bari lool sax waaye yàlla nañ ci yàlla musal. am na kaaraange yoo xam ne nii. bu dee da nga yor oto. Mm. dañ la koy jox nga def ko téere takk ko ci sa oto. bu soobee yàlla oto boobu du ma sa accident. ci kàttanu yàlla wala moto. du ma sa accident am na kaaraange boo xam ne dañ koy liggéey. Mm-hmm. jox la ko nga koy def sa poche foo jëm mm-hmm. ànd ak moom mm-hmm. boo duggee ci oto oto ba du accident. boo duggee ci moto moto ba du accident. Ah, boo duggee ci avion avion ba du accident. boo ah, duggee ci bateau lu mën a doon rek. lépp luy daw rek. boo ci duggee bu def accident. waaw kaaraange yooyu moom. am nañ ci macha allah ba léegi société yi am na ñoo xam ne dañuy am société. Mm-hmm. am jël fa ay nit. nit ñooñu ëlbatiku di leen xeex. di leen xeex dëgg la loolu xeex bi dafa bari. dafa bari loolu itam am na kaaraange yi ñu lay jox nga def ko foofu. dëgg la suul ko fa. lu lu neex waaye nga def du ci mën dara du ci mën dara. Mm. te biñ ko fa xasee suul lépp mm. lu ñu fa fekk ci lu bon. loolu daf koy yàq. waaw am na itam yeneen kaaraange yoo xam ne yu ñuy sangoo la. am na kaaraange yoo xam ne yu ñuy takk la. bari na daal ay façon. ay façon waaw waaye daal lépp loo xam ne nit ki mu ngi koy kii rek. Mm. am nañ ci kaaraange ba léegi itam wàllu bay rek. Mm-hmm. am ci. am nañ ci yu ci bëri sax. Mm-hmm. que euh, du may faral di wax ñi nga xam ne nii. Mm-hmm. maa ngi maa ngi jëflante ñoom ndax bëri na ñoo xam ne xamante naa ñoom bu yàgg. maa ngi jëflante ay kilifa leen. buñ ma déggee wala ñu gis ma danañ xam. waaw waaye du toog nag di cité. di bëri na ñu ma jëflante ci wàllu bay rek. ñenn ñi. ay woykat leen. ñenn ñi. ay bëreekat leen. ñenn ñi. yenn kilifa la ci ñu ngànk réew mi. ñenn ñi ay footballeur leen ñenn ñi itam ñi ngi ci yëngatu ci yenn leneen affaire mm-hmm. yeneen yeneen ni façon waaye bu mu ci mëntu doon ci looy mm-hmm. yëngatu rek mm-hmm. ma ne la jox kaar rek moom xam ne wax wàllu wa nga yëngatu bi xam naa Modou Lo ba Eumeu Sène ku la seet si moom xam naa affaire am dina baax macha allah ah. waaw sant yàlla sant yàlla sant yàlla bu baax waaw waaw waaw sant yàlla bu baax ndax euh, wax dëgg yàlla bayre yi daal ñi ñu koy jox fañ nekk ca kaw la ñuy nekk waaw fañ nekk moom ca kaw la ñuy nekk dañ bokk duñ bokk ñu nekk ci ginnaaw moom foo nekk moom mm. ca kaw ngay nekk mm. yow la ñuy tudd kilifa yi yow la ñuy àndal loo wax loolu la mm. soo waxee ñi déglu la loo bëgg ci ñoom nga am ko moom daal bayre bi moom macha allah jërëjëf Cheikh Ibrahima Touré xam-xamam màcc lool si wàllum fii cosaanu aada si fii suñu réew ak bitim réew sëñ bii xam naa ne waxtu bi dab nañu mais du ma dem te laajuma la wàllum këyit wàllum këyit moom da baax da nga yëngu bu baax a baax a baax waaw alhamdulilah hmm. wàllum kayit damay commencé ci yow mi nekk Sénégal. dëgg la bëgg këyit dem bëgg këyit pour dem tukki. Hmm. ndax jafe-jafe la fii hmm. d' abord wàllu kayit. en général da jafe-jafe la. moo xam fii la moo xam ci bitim réew. ndax tukki léegi yombutoo fii laa koy commencé yaa ngi bëgg a dem France wala yaa ngi bëgg a dem Amérique wala yaa ngi bëgg a dem beneen réew. dem bi jafe. boo ñëwee seet suñu. bala ngay dem ñaani kayit. nga ñëw seet suñu. am na liñ lay jox. Mm-hmm. nga jëfandikoo ko ba pare doo ko dem ñaani. incha allah danañ la may danañ la may kayit. Mm-hmm. beneen bi. Mm-hmm. mooy nitim dem nga déposé sa kayit ba pare waaye tontaguñ la. fexeel ngir yàlla balañ lay tontu. nga gaaw ñëw set suñu. ñi am ñu lay jox nga jëfandikoo ko. bu soobi yàlla biñ lay tontu. dañ la tont tontu bu la neex. Hmm. maam li nga bëgg a dégg. incha allah moom lañ lay tontu. beneen bi mooy ne ñi nga xam ne dañoo dem tukki ba pare. bëgg kayit foofu pour ñëw Sénégal. Hmm, loolu tamit seen jafe-jafe bu rëy la. ndax bari na ñu bari ñuy oo di ñu wax ci wàllu waaye nag kayit yooyu. Hmm. am na ay ñaan yu ci def ñaani nag yombul. ndax wàllu ñaan kayit. yombul dafa métti waaw waaye nag ñi nga xam ne nii hmm. euh, yàlla boole nañu ñun ñi jëflante ñu si wàllu woowu wax dëgg yàlla yàlla moo ngi si defal sutura ñu ngi ciy def ñaan bu ñu ngi ci ñu ngi ci ñu leen ciy ñaanal hmm. ñu ngi ciy gis seen bopp wax dëgg yàlla hmm. te am na ñeneen ñoo xam ne dañuy nekk foofu bitim réew duñu am liggéey boobu tam ba léegi am leen ay garab yoo xam ne nii bu ñu la ko joxee nga takk ko bu soob yàlla di nga am barabu liggéeykaay balaa yàgg. Mm, mm. beneen bitim. mooy ne ñi nga xam ne ni dañoo nekk bitim réew. mënuñoo am am dara ba léegi itam am na ay càngat yoo xam ne bi leen ko joxee. Mm. buñ ko jëfandikoo seen bunt dina ubbeeku foofu. waaw ndax yooyu yëpp seen i jafe-jafe la. waaw loolu daal maa ngi ci oo waa bitim réew mi. Mm-hmm. ak waa réew mi d'abord tamit maa ngi leen ci oo ak ñi mm-hmm. nekk bitim réew fuñ mën a nekk nag. waaw buñ jëfandikoo biñ jëflante ñun ci wàllu ñaan yooyu rek wàllu mm-hmm. kayit ak wàllu liggéey yu mel fii si Kër Massar maanaam boo ñëwee ba si station boo wootee ci numéro yi mhm. baa nga ñëw soit si Ecobank bi Cheikh bi maanaam numéro mi yooyu noonu affiché si baaru écran maanaam 77 927 13 39 baa nga beneen woote si beneen numéro mooy 77 044 13 36 foog naa sëñ bi ñaari numéro yëpp am whatsapp ah? waaw la dëgg la waaye léegi-léegi dafay xaw a xat lool. day a xat waaw moo tax may mais faaw nga insister rek booy euh, insister rek incha allah di nga ko jot. sëñ bi xam bi dab nañ lan si. waaw li may tàggatoo mooy di leen gërëm. yéen waa sunu gaal. Mm, euh, ndax ñu ngi dégg seen liggéey macha allah rafet na. Mm, ñu leen di ñaanal yàlla liggéey bi yàlla jëm ci kanam. waaw yàlla jëm ci kanam yàlla na ngeen dem ba am seen télé bopp. am seen rajo bopp. yàlla sàmm leen sàmm lépp li ngeen am waaw waaw di gërëm mbokki Sénégal. Mm-hmm. di jégalu tim encore. Mm-hmm. Euh, fa ma jógee. si mm-hmm. Saalum. ñooñu ñëpp maa leen di sant di leen gërëm. ndax ñun Saalum lañ dëkk. Dakar wax dëgg yàlla dëkkuñ fi. léegi léegi dañ fiy ñëw jëflante jàmm yàlla yi. léegi léegi ñu ngi Saalum. daanaka tooguñ noonu daal léegi léegi ñu ngi fii léegi léegi ñu ngi Saalum. waaw waaye ñu ngi gërëm waa Saalum fañ jógee. ñoom ñu ngi di gërëm. di gërëm suñuy wayjur di gërëm suñuy sëriñ. waaw di gërëm koo xam ni mu ngi seetaan dëkk nekk Sénégal wala képp koo xam ne mu ngi seetaan nekk ci àdduna bi foo mën a nekk rek. ñu ngi lay sant di leen gërëm di leen wax ne daal Ibrahima Touré. yéen la fi nekkal. Mm. li fi li ñu yor. Mm. yéen yéen a ko fi bàyyi. incha allah ku mën a ñëw. Mm. ak loo mën a am. danañ jëflante yow ci loolu. waaw ndax mbir yi. dañ ciy dimbalante jàmm yàlla yi rek dañ ciy jàppalante parce que jamono neexul. waaw waaye nag du tee. Mm-hmm. luñ lay jox lu wér la. lu wér la waaw lay jox lu baax la. loo xam ne ni boo ko jëfandikoo. Mm-hmm. incha allah di ci gis njëriñ. waaw kon mm-hmm. ñu ngi leen di oo yéen ñëpp. di leen wax ne na ngeen ñëw di wax ne euh, ñi ngi jéglu nag ci kàddu yi. Euh, lépp lu ci rafet mm. a ah, ci yàlla la mm. lépp lu ci manqué ci suñu matadi la mm. ndax dañoo bëggoon mu yéwén dong waaw ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm mm-hmm. asalaamaaleykum